loolu mosuma koo xam. ñuy jaay dañu koy wut. bàyyire la. te te te te. coono feeñ na fi mu dañuy saale. su ma doon booy L200 damay enchaîner. mais L200 est-ce que gënul jeexal sax booy booy waalo. waaw booy waalo ñaar ñëpp sonn nañ de. waaw mais booy waalo benn yàq la muy nduru moom. waaw koriyaasul rëyul mais yax maas ci baax na. L200 toppal na ko. booy waalo daw na jàppaat ko daje na ñoom ñaar. génnaat na saako yi dañoo sonn dañoo sonn buur mbër bu sonn nii la koy faj. dañuy saale. mbër. ba match bi nii tey làmb ci combat yëpp a yàgg combat yëpp a yàgg leen di woowaat ñoom ñaari mbër yi. Ndeysaan. Siteu Papa Sow 2STV arbitre bi sifflé na. buur loolu yëngu ma ko de. lii tay la 2S. waaye les femmes seront à l'honneur ndax tey jigéen ñi def ci lamb tey ñoom ñoo war a diriger l' émission. mooy geste bu nice bu Pape Abdou Fall def ànd ceeg la 2STV yi tey animateur jigéen ñi ñoom Fatou Diop da baax ñoom Nabou Ngom bu Happy People ñoom Fatma Dia bu info ajom pël bu rafet bu bool TV te ñoom tey ñooy animé tey plateau war a jàkkaarloog Siteu ak waaso. loolu dina neex dina yëngu. day neex sonu nañu waaw. ñoom ñaar a ngi noonu. booy waalo dax xeex. gis nga gis nga ci xeex ba lay misé jëlee. ci xeex ba lay misé gis gis nga zaari baaxul. boo xamante ni baaxul. xaw nañoo jéewaloo ñoom ñaar. jéewaloo nañ ñoom ñaar. ndeysaan. Angleterre moo wala bëre grand combat bi. waaw waaw. xale bu yàgg bëre xale bu yàgg bëre Angleterre. ndeysaan man fekk naa ko jamono rek énergie bu njëkk ga moom ñoom Samba nag ñoom Mbës ñoom ñaari yaar ay ñoom Moussa Safara loolu yàgg na walaay ndeysaan walaay Safara jamonoy Xaadim Fall production. ndeysaan maa yàgg sonn ci làmb ji lii. jàppale nga xale bu ne. walaay dama yàgg sonn ci làmb laa la tuddee. walaay Mabor. yaa raw Mabor. dama yàgg ci làmb. rek mbay mbay Mabor. ray Mabor mu ndaw mi. dégg ngeen bi lay delloowaat. gis na faay bi. waaw gis na faay bi quoi. dégg ngeen gën a mën a sonal ji ndengeen bu la ko tegee bu ndengeen di jaaree yoon doo doo musu mante mooy mouvement boo bëgg a def sotti xoolal booy waalo fi ñu ko teg ndengeñ bi remarqué du def benn geste xool. saa dox ci kawam mu koy ndengeñ rek. di ko mais ci avertissement la bëgg a joué. gis nga da ko bëgg a poussé noonu gis nga d'accord ma buux na ba mu génn. L200 sonn na fi mu na trois boo amee cinq day ñàkk làmbam. Boy Walo day ñàkk làmbam. waaye yow sax waaye surtout maa saa su la ñu doon arbitre yu ñan la ñuy grève la wala ñan la. déedéet arbitre yu grève yi ñëwaguñu ba léegi. loolu war nañ cee wax. ñii dañoo recruter ñeneen. dañoo kii ñu ngi ko jëlee Bambey. kii ñu jëlee ko Jaxaaw Siin. mais est-ce que ñoom war nañu mën a nangu loolu aussi. ñan ñoo war nañ ko. arbitre yi bu dee corps bi dan la. te ñoom solidarité ci seen biir est-ce tey. bu mbul na bañ la may nangu problème day am ci lii. problème day am. day am te ñoom ñëpp waroon nañoo doon ben say. mais nak Sénégal do xex xex collectif dé da la ci duggal ba ci biir la bokuma ci. Sénégal la mel non ci ko défé ta ñom ñi la ñé di xex sen intérêt. sen intérêt la. para que mënu ma comprendre ngeen organiser lamb jëlé arbitre ay comme euh ji jaxna na mot ma L200 eh, l L300 El Duasala.